ba soppaliku nit soo ko wàcc si ci yonent bi est-ce que kooku dina ñëw di mbokk yonent bi naan ko jàngal mu naan ko maana bi qaari yooyu dafa xewi yooyu dafa xewi waaw maa koo wax capitaine ba ci waxin boobu Firawna doon waxeek Muusa alam nu rabbika fii na walidan walabista fina min si sinin ngay gis ba léegi am ñuy wax ak yow ci boobu ton te mooy li Firawna doon wax Muusa ba mu jaaxle xamul xamul lu mu koy wax mu ni ko xanaa du sama kanam nga juddoo waaw xanaa du sama kanam nga juddoo mais nit juddu sa kanam terewul mu mu raw la ci waawoon a ngi nii daaw ba ren ci jéem toppandoo Moustarchidine yi la nekk ci gàmmu yi état bi li mu amoon yëpp jox na leen ko pour que ren gàmmu gi ñu jéem romb Moustarchidine mais duñ ñu dab abadan gis naa ko oustaz Alioune Sall sax xam naa dañ ko ndeysaan sonal rek pour mu teew waaye moom xam na fu mu bokk waaw waaw waaw gis naa kayit oustaz Modou euh, Fall moom it ma nga fa ca xaw ma xaw ma futur média la xaw ma waaw ñu tudd ko le miroir du Sénégal ma ne miroir bi nag jar na nettoyer tuuti waaw waaw pour wax la bu ko defee kenn ku ci nekk ak façon moo tax bi ñuy tàccu ñoom tey ci seen réception officielle di tàccu le ministre de l'intérieur ndax ni mu waxe man leen wax na feneen waaw yaa ngi nii toog yàgg délégation wax na ci seen kanam wax ci cofeel bu mu am ci man xaw ma dëgg la am déet yàllaa xam waaw wax ci daayire bi ni daayire bi amee discipline ak ni ñu organiser woo wax yooyu yëpp d'accord kenn ku ne yaa xam loo loo wax na bu dee dëgg la ci yow wala du dëgg ci yow yaa xam waaw mais man gëm naa ni li nekk ci mbooloo mi benn bu nekk Sénégal bu ko am amul du du tiitaru du tiitaru de billaahi al la ma góor gi waxoon ca foire ba ndax saf xam nga li nga réussir ci ni man man fi ma toog xam naa ko loolu mooy wax bi moo tax bu ñu leen bëggee delloo ci ay détails du ma ko nangu waaw da ngeen di jël seen cap rek waaw bañ a changer li ngeen doon waaw loolooy tax daf may reeloo sax melentaan yi sax invité nañ leen waaw waaye gis nga sunu boroom ko am xam nga waa Màkka dañ doon jéem tooñ yonent bi naan eh moom yàllaam ji ñett rekk a ko gëm waaw te mooy Muusa isa ak moom ñoom ñetti ñooñu rekk ñoo gëm am ji sunu boroom wax yonent bi ni ko wax leen ni leen may yàlla yoo mu jeex maanaam pour won leen ñoom ak importance bu ñu jox seen bopp yàlla moo ko ñoo ko yoo la yemale parce que li mu daj ci yoo pour bind ko moom la daj ci ñoom pour bind leen et puis tout waaw moo tax inna allaha la yastaxyi an yadriba mathalan ma baudatan fa ma fawqaha ko defee xam sa bopp dafay am solo yonent bi kon dañ ko wax na fay bor bi boru xam-xam yi ko yàlla jox nga xam ni aadamay père de l'humanité mais kenn jox ko lu toll noonu waaw looloo tax nag bokk yee yëpp takku bokki iqra waaw ñoom ñëpp ñu ne ah sunu doomu ndey nag lañu fal waaw te mooy iqra waaw kon nag nañu dem jàpp ca ndax bu amee ci sagaru njaam yi ñu am ci waaw ke njëkk ni ko ah sa nuquri uka fala tansa xoolal loolu fala tansa lu tax parce que laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya walam mu ni ko aadama moo jiitu woon yàlla am na lu mu waxoon ak moom am na ay recommandation yu mu ko joxoon waaye dem na sàggan ba fàtte lépp loo tax di ko dal dal ko ñu bëgg yow nag booy jàng nga def sa yitte ba li nga jàng doo ko fàtte waaw te ay bokkam kat ay bokki iqra ñoo koy wax loolu te nuqri'uka falaa tansaa waaye ci turu borom bi lañ ko waxee waaw mu jóge ca ñu indeeti beneen ci bokk yi ñu indeeti beneen ñu wax ko ni ko inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almuminin waaw ñu ko gis nga lii ñu ñu la jox nii ni la nga jàng ko lu nit jub jub jub ak fu nit mën a yegg du téere téere bi mën na la gàgganti waaw kon nag bu leen ko sàgganee waaw ñu jékki-jékki beneen ñëwati wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin ñu ko yàlla def na ci téere bi lu nga xam ne ku bëgg yërmande ci sa bopp ba nga am jàngooro boo bëgg yàlla saafara ko boo ko jaaree ci alquran yàlla mën na la ci defal sutura waaw beneen ñëw ndax boobu yonent bi dafay def bu jibril ñëwee di ko sa alquran fekk yàlla imprimé na alquran bi ci ci xolam mu jëkkantu di ko tari te jibril waxagul sunu boroom ni ko waaw de dee ko dee ko sarax bokk di di di ko sagal bokk bàyyi ko mu jaar ci ba noppi nga soog cee jaar waaye bu fekkee ne bu ñëwee bala mu lay sa yow nga wax yépp kon kay lu mu fi doon wut si waa di ko wax yonent bi waaye fekk na booba it yàlla moo ko def ci moom waaw mu indaale ko waaw merci jaarien sax dafa mel ni mhm. bi ci des itam wa ida qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil axirati xijaban mastura waaw mag ñi daan nañ ko digle pour kuy xëy ngay jàng aaya boobu ndax am solo gi mu am solo waaw te moo di boo di jàng alquran lépp lu yàlla wul wala mu amee lor yàlla mën na dox sa digganteeg loolu ndax barke alquran waaw yu mel noonu ñu di ko jox yonent bi di ko ko sax ba ci faqra'u ma tayassara min alquran te mooy bu ngeen di jiitee ci nit ñi dee leen jàng saar yu woyof rekk saar yi bañ gudd ndax mën naa am am na ñu feebar ci biir sàppe si walla am na ñu nga xam ni ñu nga ca jihaad ja dañoo bëggoon am ci yoonu salaatul jamaa rek moo tax ñu ñëw gaaw pour ànd ak yéen ràkk yi te delluwaat ca front ba waaw ñu mel noonu ñu di leen bàyyi xel ba duñu ñu jàngal lu ëpp waaw yu mel noonu benn bu ci ne